jër ngeen jëf mbokki téléspectateur people 221 ñuy suivre ñu ngi leen nuyu di leen ziar di am mbégte ci jàkkaarloo waat ak yéen di ñaanal suñu kilifa di nekk suñu kilifa aada yi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm tey nag euh, ñu dalal suñu benn frère boo xamante ni ah, dinaa leen bàyyi mu présenté boppam euh, mu di frère di mag ci Adji Sarr di xaritam ñaar ñoo am ay relation si lu bari dinañ leen di leeral yooyu ci kanam sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay suivre bon ñu ngi leen di fay di leen ñaanal jàmm di sàkku ci ñi ñuy seetaan tamit euh, ñu digloo ñuy xel bala ñu leen a nuyu sax dañuy mus na ci seytaane mm-hmm. di wax aouzu billahi mina sheytaani rajim mm-hmm. rabbi sax di sadri wa yasli amri waxlul uqdati lisaani yasfahu xawli mm-hmm. yal nañu yàlla musal ci catu làmmeñ ba lu ñu fi wax rek muy lu jariñ askan bi njuumte bu ci amin ñu xam ne ni tamatul rek waaw fi may njëkkee mooy nan nga tudd Abdou Nguer. Abdou Nguer euh, lan nga ci Adji Sarr. sama rakk la. Mhm. sama lépp la. ma ñëw ci audio yi nga xamante ni euh, génn na fan yi mu jur coow lu bari muy diggante Adji ak Baye Mbaye MC euh, Baye Mbaye da nga ko xam. Baye Mbaye mosuma koo gis mais waxtaan naa ak moom téléphone woo na ma woo naa ko. ci problème bi wala ci audio yi ci problème bi problème audio yi parce man damaa toog ni ko déggee rek laa ko déggee ma gis benn jour parce lu jiitu loolu dama gis Baye Mbaye génn ne bàyyi leen xale bi sama taalibe la. waaw ñépp gis ko mu ne daan na ñëw ci kër gi di bale kër gi daan ànd ak magam. bi ñu demee ba benn instant Baye Mbaye defaat deuxième sortie ne dama bëgg kilifa yi wax ñu waxtaan ñu yamale fi mbir mi ndax mbir mi kompaloo la te xale bee ma ko wax ak ni ma xamee xale bi ma xam ne xale bi waxut loolu ma jël suma téléphone. laajte numéro baay mbay ñu jox ma ko ma woo ko téléphone jotuma ko ma envoyé ko audio après mu liir sama audio mu woo ma téléphone bi ma woowee téléphone ma xam ne loo amul seede baaxul ma enregistré suñu appel ma bàyyi ko mu développé 10 minutes ba mu daaneel parce que nit ki buy wax lu dul dëgg bàyyi ko mu wax bu daaneelee nga posé ko question ci laa ne ko Baye mbay am naa information ne xale bi danga nga koo doon labat ci rafetal ndax ruse naa ko bàyyi ñas mhm. léegi da nga ko doon labat mu ne ma koo xamul koo musul gis noo koy nobee Baye Mbaye moo wax loolu moo ma wax loolu moom waxoon Adji Sarr la voilà wax ci jaaxal ma ndax comme nee na ma koo xamut koo musul gis noo koy labatee ma ne ko kon musoo gis aji mu ne ma musuma ko gis daan ma billaahi wallaahi taalaahi musuma ko gis su émission bi jeexee léegi naa la jox audio bi nga déglu mu ne ma mosuma ko gis. ma ne ko koo musul gis nag nan la mën a waxee ak yow téléphone est-ce que Baye Mbaye du keneen lañ la jox mu ne ma aji moo ko wax ne li yëpp complot la. mais léegi nan la ko aji di wax li lépp complot la moom mu wëlbatiku waat na ma su ma leeree ne dañ kaa violé dinaa dem jàpp ko jiitu ci xeex bi <laughs> di nga reetaan parce que dafa dafa jaaxal ñëpp. mooy yow comme man ñëw naa fi nettali la sama problème yow nga génn ne Abdou wax na ma problème waaye su ma leeree ne lii lii mu wax dëgg la dinaa ko jàppale te man ma ne la lii du dëgg doo jàpp li ma la wax. sama xel jox ma ne Baye mbay audio yim ne am na ko ci aji manière illicite la ko amee maanaam lu dëppawut ak yoon. la jaar ba am ko. comme te foofu dama fi taxaw def fi leeral. gannaaw Baye mbay bi mu defee loolu ba pare dafa dem ci papay xale bi waxtaan ak moom. papay Adji Sarr. waaw waxtaan ak papay xale bi comme sëriñam lañ waxtaan leen xam leen ni dinaa ko jàppale sama taalibe la gëmloo leen loolu daa di dem woo aji ne ko baa ñi ngi lay toppatoo wala ñi ngi lay jàppale baa mu benn problème aji ne ko maa ngi ci jàmm maa ngi ci salaam. baay mbay ne ko dinaa la booleek ñu la jàppale am na ci ñoo xam ne su ma leen woowee dinañ la jàppale ne ko nag dama lay jox ay tur yoo xam ne danga koy téye léegi après dinaa la woo baay Mbaye defar list boobu mu yor boobu muy wax. moom moo ko defar wax xale bi na ko téye maanaam xale bi jël note comme ni ma la ko mën a misaale mu yow. ma ne la euh, sëñ bi. list bi ma lay jox dencal ma ko. nga dencal ma ko deux jours troisième jour ma woo la bu ma la woowee ne la ana liste bi ma la dénkoon nga ne ma ne la limal ma tur yi ci nekk ma jël ko ndax dama leen bëgg a woo pour ñu dimbali la. mooy list bi Cheikh Bara Ndiaye. non du boobu du liste boobu. non du boobu ñee dañuy euh, wax di kàcc rek. Mhm. list ba mu wax xale bi ay kilifa diine nga ca ay kilifa aada ay autorité ay ñëpp nga ca ba mu defar jox ko. ay kilifa diine la ñu am mbooloo la defar jox ko maanaam ne ko na ko téye ne ko ko bindal téye ko léegi bu mu toogaatee ba mu yàgg mu ne ko ana lu ma la waxoon nga denc ko xale bi ne ko mu ngi fi mu ne ko limal ma limal ma tur yi ma ma ma bind ko mu après ma woo leen ma commencé naan comme par exemple ma commencé naan Modou faal Assane Diouf léegi sama voix mu ngi dem. ci appel bi nga enregistré. mu pare nag jël loolu xale bi mu ngi lim ay kilifa yoo xam ne xamul leen sax maanaam bàyyi mbay tentative boobu la def loolu mooy maanaam affaire escroc a def ngeen baal ma ci kàddu gi affaire bu ñaaw mooy nga jox nit lis lim loo ko liste bi pare jël loolu ne wala ndaw si nee na ñii ñëpp dañuy yegg ci kawam te audio bi amul suite man li ma jaaxal ci wax ji mooy ñëpp dañu jàpp ni comme li ñu wax ci ojo yi que ni moom Adji Sarr dem na ba yegg ni ko ñii tudd tëddee nañ ma ñii tëddee nañ ma ba ci maître El Hadj Diouf. amut maître El sax boolewu ko ci woon waa Pastef ñoo defar list boobu di tudd turi jàmbur ay Bamba Kaseek daay di wëkk di di tudd ay ay Khalifa Jaxaseek parce que seetlu politique bi Pastef di def mooy dañuy xool ñi leen gën a sonal ñi nga xam ne dañuy wax te yàlla rek tax. ñu boole leen Aïssatou Diop Fall da dul góor François Hélène Gaye du góor kuréel Macky du góor mais sinon ci biir liste bi lañ doon bokk mais ay jigéen lañ dugal nañ ci euh, grand frère Aïssatou Diop Fall ci biir liste bi mais la mbay yor li tax mbay mu ne leen ojo yaa nga Amérique ak dénkaane naa ko France moo tax ngeen xam ne du ngeen ci mas a jot yéen parce que ni ko amee su ko génnee yoon da koy jàpp mënoo dénk nit ab liste lim loo ko liste bi mel ni Alioune Cissé mu toog di lim ay liste joueur nga jël liste boobu ne Alioune Cissé nee na ñii ñëpp jox nañ ma xaalis yokk ko ca loolu waxi tappale la ba pare wëlbatiku ne ko ñii ñëpp su ma leen woowee dinañ la dimbali jox la ay millions Baye mbay mii Baye Mbaye mii su rusutoon Baye Ñas Baye mbay dinaa ko wax lu ñaaw parce que lii lu ñaaw lu bon la mënoo fekk xale bu nekk ci problème di souffrir nga def say mathématique def say calcul bind sable liste ci àll ba xale bu yëgul tinul xamul ñooñu ci aadama xamu leen ci awa mosu leen a gis. d'accord léegi ñan nga jàpp ne ñoo lal pexe boobu noonu Baye mbay dafa bëgg daaneel Macky wala dafa bëgg taxaw jàppale Sonko moo tax. koppar la bëgg xaalis xaalis parce que dégg ngeen ko ci jàkkaarloom bi bu mujj bi ëppoon par exemple bi nee na waxataan ak aji gëmloo ko xaalis Baye Mbaye ko wax man waxuma ko de baay mbay nee na moom waxtaan ak aji gëmloo ko xaalis. léegi xaalis bi mu ci bëgg ñan ko ñan ñoo ko ko proposé. waaye yow xaalis bu mu bëgg def ci boppam nga naan ko proposé Baye Mbaye kan moo koy proposé xaalis moom moo bëgg xaalis bu mu def ci koppar yu mu def ci boppam. ki tëj nii temps yi Cheikh euh, ki tëj nii Ahmed Cissé. Ah. nee na Baye Mbaye jox na ma ojo yi ma diglu ko mu ne ma. nan laay def ba am ci xaalis nee naa la aj Sarr depuis ma xam ko ba léegi musuma fen te lépp lu ma dégg sama téléphone laa jël ma woo ko ne ko nangam nu mu demee yàlla mi ñu tiim laa jël seete lépp lu ma dégg damay jël sama téléphone ma woo ko ma ne ko dégg naa nangam loolu nu mu demee. d'accord léegi yow damay tournawaat tuuti ci sa diggante ak Baye Mbaye ojo yooyu nga xam ni waxtaan ngeen ko yéen ñaar bi nga ko déggee est-ce que audio yooyu dem nga tegal ko aji. jox naa ko ko. ojo yooyu mu ngi ci aji. jox naa ko ko yónnee naa ko ko man duma waxantu parce que dossier bi man bokkuma ci sax ñi ci gën a siiw man rarement laay génn soo ma seetloo bu ñuy auditionné aji wala ñuy auditionné Ousmane Sonko wala lii laay dugg si Ndakaaru su ma paree damay génnaat dem. parce que li ma ci xam lépp su ma communiqué lu bari rek mën naa ci génne loo xam ne bëgguñu mu génn te boobaa yoon mën na ma ci topp mais ñii li ñuy manipuler nii yëpp taxawul bàyyi mbay mi bu dee moom lañ yaakaar comme arme bay boo ñu dem seeti leneen j'espère que sax ñi ngi commencé euh, génn ci baay mbay parce que lii mu fi teg vraiment lii no parce que bàyyi mbay Baye Niass lañ koy ruusee moo tax du ñu mën a saw du ñu mën a wax ci moom mais bu doon keneen la lii dina ko wex xat mais léegi nan la Baye mbay mën a taxawee di wax lii. ba ñu naan dossier aji Baye Mbaye. Hmm. te waa famille Baye waa famille aji tamit taxaw ñoom xam ba pare toog. am na cër buñ joxe seen digganteek baay mbay mais lii diggante bii nag cër amatu fi. ah non xam nga ku ne nag déglu ma rek ku ne nag ak ni ngay jàppee sa kilifa. Hmm. sa kilifa mën na wàcc yoon. nga mbët boo ko xoolee am kooku ruuse. mais sa kilifa lu mu mën a wàcc yoon man tey sama kilifa. waaw bu wàccoon yoon. yow tey boo ñëwoon ci sama wayjur. ni ko diw mii. maa ko jox téléphone bii. suba nga génn ni diw mii daa sàcc téléphone bi. te wayjur gis ni yow mii kat ñëw nga ni leen man maa yaa ma jox téléphone bi. nga dem ni da nga koo sàcc mais samay wayjur kay dinañ ñëw ni ma diw ñëwoon na fii nii moom daa ñëw nii tel diw daa sàcc téléphone bi. waaw moo tax ma ne la ku ne ak ni ngay dundee loolu. d'accord am na ñoo xam ne soo leen loo leen man di waxal am na kuñ lay rusee aji saar mii bàyyi ñas la ruse MC. moo tax léegi ay waajuram ñiy manipuler aji saar ni muy dem ak a ñëw. non manipuler wu audio mu toog jàpp ñamram du dañ koo manipuler nit moo jugoon pour yàqu ko pour wut ci moom alal wut ga sotti wut mu mujjee tàbbi ci loxol yoon ndax bu doon bàyyi mbay ak bàyyi mbay du mas sa wuy ji procureur ah. waa kër Ousmane sonk yi avocat mi ñoo insister pour ñu woo bàyyi mbay. pour ñoom baay mbay yor nañ lu Baye Mbaye yor na lu crédible Baye Mbaye la mu yor ñoom avocat yi sax dañoo rus parce que audio nee naa la day am suite soo ma limloo benn list ma limal la ko yaa ma ko limloo mais ya ma ca toftal xanaa di nga ko wax. mais man ma toog Daouda Mbow Assane Diouf Fatou Seen Alassane Alassane jox la ne <laughs> mais war na am lu ci topp liste Baye Mbaye defar listam na xam fu mu ko jëmagum listam mais list bii ngeen di gis nag ci réseaux sociaux yi ñu ciy lim ay Bamba ay Maître El Hadji ay Abdou Mbaw non yii moom vraiment jërul ngeen ci tenir compte jërul ngeen ci tenir compte loolu maa passé fa ko def parce que gis na ñaamanteeg problème Ousmane ñu def leen ci liste mais liste ba Baye mbay jox aji nag ngir wut cam koom boobu moom ya ragal naa du ngeen ko mës a dégg ci àdduna parce que Baye mbay du ko jox kenn de coow li li muy réy réy da lay woo këram nga ñëw mu jox la airport yi nga takk mu téye téléphone bi kon léegi Cheikh Bara su peleyee. waaw su peleyee. Mhm. dégg xale bi di lim di lim ba mu yàgg mu mu fay. waaw ne la indi nga jox ko airport mu def ci poosam. boo génnee looy wax da nga dégg naa aji di lim ay tur mais ay tur rek ngay dégg de. d' accord léegi kon Cheikh Bara Ndiaye audio mu doon wax ba ne moom bi mu ko déggee. Hmm. bu ko nettalee àdduna tukki. waaw kon audio yooyu da jàpp ne daal ay list la bu ñu toog rek classé teg ko. non Bara Ndiaye moom ba mu ne Ousmane Sonko yegg na ci kaw xale bi. waaw audio mi ñëpp di ko dégg laa bërgal Baara Ndiaye waxam man du ma ci tenir compte. waaw Baara Ndiaye moom bu toogee ne yàlla am na sax am na nu muy demee faw ma gëstuwaat ndax li mu wax dëgg laa am déet Baara moom ay mbiram moom. d'accord léegi ma fara ci weewu bay tey ñu ne Adji Sarr ba fii ñuy wax ak yéen mu ngi ci procureur lu xew. pan procureur. mais dama ko dégg dafa wuy ji tey. waaw procureur woowu ko. kan moo ko woo. doyen du juge moo ko convoqué woon. waaw auditionné na ko génn na ñibbi na. ak comme nu mu ko téye sànq de maa ngi waxtaan ak moom téléphone. kon noonu wala buñ ñu ko téye dañ koy jox téléphone am wala ci salon bi lañ ko téye fa wala ci biir tribunal bi ak lan lañ koy war a téye. mu ngi noonu sa mot de la fin ci émission bi. waaw sama mot de la fin mooy li may wax appel bi may lancé dama koy lancé waa PASTEF. waaw nañ xam ne xale bi vingt ans warul leen a gën a responsable nga seq xale bu ndaw ba vingt ans. mu taxaw ne la nañ dem ñu àtte ñu yow ngay dajale say journaliste say chroniqueur say ustaas say faux imam ñëpp nga dajale leen contre kenn nit at deux ans muy résister ak war nañoo mën a taxaw seetlu nag xoolaat seen bopp. mais foofu nag dama doon tàggatoo mais foofu dama d'accord ak yow parce que aji nekkul moom personnel mooy dem aji buy dem mais El Hadj Diouf dina dem Gabriel dina dem ñëpp dinañ dem. Gabriel ci salle bi lay toog. aji dugg ci bureau beeg avocat. mais ñooy ànd Sonko bu demee tamit ci salle bi moo dugg ak ay avocat. douze quatorze heures la yor kon journaliste soxlawul ñuy wàll si di sot ki yor quatorze ak ki yor deux. suñu waree dem ci terrain bi ki yor quatorze di ragal moo tooñ. foofu lay tàggoo di nuyu ñëpp di sant euh, waa CODAS di sant waa activiste républicain di sant CODAS ba 2 ba 3 di gërëm kura Gabriel ñi nga xam ne dañoo jàpp ci xeex bi Françoise Hélène ñi nga xam ne combat bi depuis di début à la fin ñu ngi ci di dégg lu ne di tayle seen njaboot ñu leen di menacer de moor di leen saaga di leen xas. Mhm. ngir lan protéger benn xale bu jigéen bu ndaw boo xam ne ay nit a jóg di ko sosal di ko xas di ko saaga am na doom amoon na jëkkër lu ne dégg nañ ko fi te dara amut ngir yàlla nañ nekk ay responsable ñu dem xale bi procès. xale bi loolu la soxla man loolu laa soxla keneen ak keneen loolu la soxla Sénégalais yi loolu lañ soxla ñu xam dëgg bi fu mu ne. d'accord jërë ngeen jëf.